loolu ëpp naa def saa yoo déggee dëgg daal ba wóor leen dëgg la te nanguwoo ko rek loolu werante lay andi loo ca wax teg ci rek ndax bañ ku suufee sa daraja ak yu noonu rek boobu yaa ngi werante te loolu nag ab julit war na ko moytu wa min ihaanatin ak ci ak doyadal aw intihaarin wala gëdd li muslimin yi ab julit aw sabbihi wala ak ŋàññam bil aari ci kàcce mu bokk na ci yi nga war a moytu ci làmmiñ di ci doyadal benn jullit mbaa di ci gëdd benn jullit mbaa di ci xas benn jullit sa mbokk jullit moom danga ko war a fonk ngir yàlla ormaal ko waaye bul ko yab mukk ci soo làmmiñ bul ko gëdd mukk bul ko wax dara lu ñaaw luy nuru aw xas wa mislu zi kem yii la tax wii fufoo ak ragalloo tax wii fan ak ragalloo fii xëy di xaq yi ci dul ak yoon laa tax yi fan bul jeng ba tey nee na saw làmmiñ sañoo ci xupp sa mbokkum julit sa mbokkum julit bu fekkee jaadul yoon sañoo ko tiital ak xupp ci saw làmmiñ déedéet bu fekkee daa jaadu yoon nag moom lay bëgg a wax moom yoon na koy teg ci yoon waaye yow daal suñoo jekki-jekki sa mbokkum julit nga di ko tiital ak xupp ci saw làmmiñ laakin na xoo waaye moom nag fil xaddi ci géttan ga wa taasiri ak yar ga mu jaw was lu ñu daganal la xinda foofu lil xiiri kuy yaa ngi ko miin ci kuyal xar wala fas wala yooyu waaye da ciy jublu borom xam-xam yu mag ya daa wax ni mbokkum jullit ma ko see jàdd yoon ñu war koo géttan géttan lu mel ne mu njaaloo mbaa mu sàcc mbaa mu naan sàng dañu war koo def la ca war ci yoon loolu géttan la buñ ko war a yar nag mooy daa def loo xam ne téere bi ci bopp rëddul ne nangam war na ci waaye àttekat moo war a seet lañ ko war a yaree ba bu ëllëgee du ko defati yooyu yëpp nag moom buñ ko koy def tuyaaba lañ cee ndax loolu yàllaa ko santaan ñu koy def rek waaye jékki-jékki tooñ ko moom kenn sañu ko waxaakasa ni ki nii al yaminu giñ bi ci pase mu xarra mu nuñ araamal la walay sa bit tifaaxin waaye déet muy nekk ci dëppoo da wax yi nga xam ne war nga koo moytu ci soo làmmiñ mu ne bokk ni ca giñ ci fase soxna mbaa dana ko wax léegi ba tey giñ ci goreel ab jaam moo tax mu naa li xabari nax yi ngir xibaaru tere ga maanaam ak gisub tere ga rek anil yamin yi walis ngiñ bil eq ci ak goreel wa talaax ak passé fi bi yi ni ca biral ga addis ba danoo aaye jiñ ci fase soxna mbaa jiñ ci goreel ab jaam ñu wóotee ci nag ba xam ndax aaye ga aaye araamal la wala aaye ga du aaye araamal aaye sib la moo tax bi mu ne giñ ci pase luñu araamal la mu ne la waaye nag ñëpp dajewu ci muy walay sa bittifaaqin waaye daal na nga ko moytu ci saw làmmiñ bu baax a baax ndax bu ko yonante bi aaye rek xam ne la tax mu aaye ko kon fase moom yàlla bëgg ko waaye bu demee bu mënta ñàkk ku yow bu def ko waaye bu mu jekk di ca waat naa nangam du ma ko def suma ko defee saa soxna fase na mbaa saa soxna si du dem kër diw mbaa nu dem ci xew sàngam bu ko defee waat naa ne fase na lu mel noonu na ko moytu ci làmmiñam ba tey jamonoy jaam amee goreel ab jaam lu ñu sopp la te tuyaaba ju réy réy la waaye nag jekk di ko waat mbaa di ci aj naa su ma defee nangam saa jaam bi gore na li mel noonu daal nañ ko moytu ci làmmiñ fekk na nun sax loolu mel na ni bokkutoon ci sunu aada teewul nag fase gi moom léeg-léeg nga dégg ku ne wax na waa këram ne leen su ngeen demee ca xew sàngam mbaa nangam loola mooy seenu fase lu mel noonu nag mat naa moytu bu baax a baax ndax day indi ay jafe-jafe ci kanam rek ndax kooku day wëlbati ko di ko laaj ba xam lu ci àtte baag nangam ak i nangam. wa ma neex taada koo xam ne baaxoo na bi xaaja giñ loolee xalal tarti bi ci topsale fa innahu naka moom yakkoonu dana nekk zaata adibin di boroomu yar. loolu ñu aaye muy waat ci fase soxna mbaa waat ci goreelub jaam ku koy def ak defaat mel ku ko def muy aw xewit kon àttekat ba war na koo yar ba mu bàyyi ko idi ngir lay sa yaxalifu te diggiñ bi kat talaax yi ci lu mel ne passé wala isqi ak goreel aadatan ci aada siwal fus saaqi ndare saay saay sa li cëpp daal koo gis muy waat ci fase soxnaam mbaa waat ci goreel ab jaamam day nekk kàccoor boo xam ne day tuddoo diine te du sàmm diineem ku mel noonu daal mooy ëpp def lu mel noonu kon wax na sàmm aw làmmiñ bu jàll si nag wax la sàmm bët ndax ci yëpp mata sàmm waaye yaar yi moom dañ cee gën a doy waar moo tax mu naa wax yu zuufoo war na ci mu kàllaf ak watoom basarafoo gisam ba minal xaraam yi ci lépp luy aji araam laa yanduran bu mu xool maa loo xam ne lam ya jus añ an yanduraxoo mu xool ko mu kàllaf war naa téye bëtam moytu cee xool dara lu araam na ci moytoo xool dara dara lu araam kan nazarin ñi ki xool bi nazaratin ci ab xooliin lil muslimi jëm ci ab julit tu viihi bopp dana ko lor de laali faasixin waxuñu jëm ci ab saay-saay aw mujrimin wala aju tooñ te mooy ab yéefar ba li fi nekk waajibun aji war la alayhi ci moom fiima ca la nga xam ne shuriha yoona leef na ko hijraanuhoo tongam nga tong mooy jàmbu nasihatan ngir laa biire leer jeexa ngir mu deltu gannaaw bokk na ci xool yi ay sa mbokkum julit nga ne ko jàkk di ko xool bët bu ñaaw boo xam ne bu la dee jàkk xam ne yow xool bi koy xool du xool jàmm déedéet sa mbokkum julit da nga ko war a xool bëtub yërmaande bëtu mbokkum jullit rek waaye xool ko xool bu ñaaw boobu moom bokk na ci araam bu fekkoon ne kooku nag day ab yéefar wala muy kàccoor maanaam koo xam ne ab jullit la sax waaye dafa sàmmul am jullitam day def lu aay te di ko fésal mel nay naan di daanoo ka def yu bon a bon ku mel noonu moom doo yem ci xool ko xool bu ñaaw rek waaye day war sax nga jàmb ko tong ko bañ koo tudd bañ koo taas bañ joteeg moom dara te jubli ca rek ak laabire maanaam jublu ca mu xat ba bu dee kàccoor baa mu bàyyi kàccoor ga bu dee yéefar baa mu génn ci kéefar ga te ñëw tuub nga xam ne yow ngir yàlla rek tax nga di ko tong ka jàmbu su boobaa tong ka man naa yàgg lool ndax ngir yàlla tax bu dee nag koo xam ne la ngeen seq moom sa wàllu bakkan dong la te mënoo koo ñàkk jàmb kon jàmb ko bu weesu ñetti fan loolu lañ ca bu ñetti fan ñu matee nga daal di gaaw nuyu ko wax ak moom daal di génn ca jàmbu ga ndax sañu su ko ndax lu mel noonu sañu su ko weesale ñetti fan waaye bu dee jàmbu goo xam ne ngir yàlla ko waral moom mën naa yàgg wa mën a oo tere nañu na dara xool li nisaay jëm ci jigéen ña al ajnabiyaati ñetti ay jàmbur bokk na ci xool yi araam ngay xool jigéen joo xam ne araamu laa takk nga di ko xool lu bokkut ak kanam gaak tenq bi moom itam nag war na bu dee génn mbaa mu toog foo xam ne kenn mën na ko faa fekk mu sàng lépp ba mu des kanam geeg tenq yi jàpp nañu ne daal jigéen ji nga xam ne ara mu laa takk kooku mooy ab ci yow sañ ngaa xool kanam ak ay tenqam bu fekkee ragalool da nga am fitna ca xool nga ngay xool kanamam ak ay tenqam boo ci ragalee fitna nag moom doo xool wakal xas naay ak ni ki aji rafet min kulli suuratin ci wépp melo xalal tisaasin ci kaw bànneexu ba tey sax na bépp melo ak bépp photo boo xam ne rek boo ko dee xool mën na laa yóbbu ci mooy yàlla moo xam dañ koy feeñal ci télé moo xam ci cinéma moo xam ci théâtre moo xam ci journal yeeg yu demee noonu yëpp daal bépp photo boo xam ne boo ko dee xool mën nga ca am bànneex ba mu yóbbu la ci mooy yàlla rek xamal ne araam na nga xool ko ka am rati rijaali ni ki toyamu góor ña fax dara na nga wattandiku xaasi yile toyam dañ koy wax xale bu góor bu saxagul sikkim nga xam ne rafet na neex a xool loolu nag bu dee ku yittewoo mbirum ngóor a jigéen xëy na bu ko xoolee xelam nekk ca loola man na ko mën na ko yóbbu ci moy waaye nun daa mel ne loolu sunu béréb yi moom loolu amuluñ ko solo waaye nag daa mel ne ñoom fañ doon taalifee ca penkoog yooyu mel ne fi nga xam ne fala boroom laxdar yi nekkoon ak béréb yi demee noonu moom ngóor jigéen yàggan na faa xew xam ne góor mën naa xemmam moroomum góoram ba bëgg am bànneex ca moom kon nag dañuy aaye su boobaa xool xale bu góor boo xam ne saxagul sikkim te xool ba mën na laa yóbbee ak mooy ca moom waaye nun daal mel ne loolu du sunu aada fii xanaa mën naa am ci dëkki taax yi mel ne Ndakaaroog fu demee noonu boo min xu bokk na ca nazaratul xool xalax ci xaarin ci kaw xeebeel kazaliki nii li tax wii fi ngir ragalloo ti intihaarin wala gëdd ba tey bokk na ci xool yi araam di xool sa mbokkum julit xoolub xeebeel wala xoolub xuppaate xoolub gëddaate fii mu nekk kat li nga xam ne moom la làmmiñ mën a xuppaatee mën a gëddaatee fi mu toll xool mën na ko daanaka lu làmmiñ mën rek mënees na ko wane ci bët mënees naa xool ci bët xool bi nga xam ne kii dafa xeeb li muy xool mënees naa xoolee ci bët nga xam ne kii day xuppaatee ka gëddaatee mbokkum jullitam nag moom suñ koo xool mukk xool bu demee noonu da ko war a xool ngir yàlla xoolub wegeel xoolub cofeel xoolub ormaal ngir yàlla waaye dama nu dana warlu alxaa idu aji ay bët maa la nga xam ne xadd xalaka alkoona bi ay nit yi ci bëtam ba kama raisu ni ki nga xam ne kilifa ga xadd xakaa nettali na ko nee na koo xam ne bëtam daa aay te yàllaa koy def nga xam lu mu xool rek loolu ayub kon de lu xool rek ba loolu ayub moo ko war a fay moo ko garanté daa mel ne bañ doon taalifi téere yi dañ ko daan mën a xàmmee ni kii bëtam ay na ak kii bëtam aayut waaye nun daa mel ne fii nu nekk mënuñu koo xàmmee boo gisee lim ci teg wayu si jëlu def na tëj almiyaanu borom bët bu aay ba xay suus taxarafu bi ci lor fii man silihi ci këram xëy na nga wartu alxabara xabaar ba nee na ku ñu xës xàmmee nga amee bët bu aay dañu lay toogloo fa sa kër nga toog ndax nga bañ a lor benn jaambur bañ a lor alali jaambur bu ma nee nag lañ doon taalifi yi damaa jublu rek cosaan muy al axdar yi ak yeneen téere yu muy ñëw ak yeneen téere yi andi yu mel noonu loolu jublu ne sëñ bi moom fii la taalife waaye mel na ni fii itam daal booba xawuñu woon a xàmmee bu baax a baax ku amee bët bu aay ak ku ko amewut wax yu bu war na mu kàllaf ak watoom aljawaariha cëriya albatnu te mooy biir lisaanun ak làmmiñ farjun ak pëy pëy mooy sawkaay dana yóbbaale bu góor bu jigéen warijlaani ak ñaari tànk waxay naani ak ñaari bët yeddaani ak ñaari loxo saabiuhaa ak juróom ñaari seen al udunaani mooy ñaari nopp man raa ku sàmm laxaa ñeel leen xanil maas yi walis ay mooy xaasa kon mu làq xasdan jub ajjuma xam mboolim jub daa njëkk na tànn ciir yi ñaar muy làmmiñ ak bët njëkk laa aaye wax la ya nga ca war a moytu mu far nag léegi wax la sàmm juróom-ñaari cër yëpp yëpp ne la mu kàllaf kat war na sàmm juróom-ñaari cër yi ba ba mu dellu ca boroomam bañ ko caa mooy benn ba mooy biir bañ a des mooy làmmiñ ba ko ñetteel mooy sawukaay ba ko ñeenteel mooy ñaari tànk ba ko juróomeel mooy ñaari bët bu ko juróom-benneel mooy ñaari loxo bu ko juróom-ñaareel mooy ñaari nopp ñu ne ku sàmm juróom-ñaari cëram yi bàccee mooy yàlla nga xam ne kon li wax jub am na ko dëgg-dëgg fa mu tàmbalee ba fa mu dana leeral nag ci yenn téere yi ne boo demee ci tasawudu shubbaan ak boo demee ci fatful mannaan fii jawaabi abdurahman ak boo demee ci lu mel ne mu nawiru sudoor dana fa leeral benn cër bu ne la nga ca war a moytu ak la nga ca war a sàmm indi ngir ku lu xud bépp cër saax yow sama àndaale min haaj juróom-ñaar yooyu xaabala jàkkaarloo naag baaban bunt bi ne niiraani ca sawara ya fii ca la nga xam ne xad sabata sax na li tax juróom-ñaari cër yi mata sàmm mooy cër bu ci nekk dafa bunt sawara bu mu jàkkaar lool nga xam ne boo fexee ba sàmm juróom-ñaari cër yi kon doo dugg benn bunt ca bunti sawara ya moo tax mu naa wa kullu man képp koo xam ne xafizaha wattu na leen laa yadduxulu du dugg baaban benn bunt minal bii baali ca bunt ya fiimaa ja la nga xam ne yoon xalu def na ko toxal ku sàmm juróom-ñaari cër yépp ba moyoo ci kon mucc nga ci juróom-ñaari bunti sawara yépp yépp yépp ya nga xam ne moom la cër yooyu jàkkaar looloon wa kullu xudrin bépp cër xadd xasayte bopp mooy nga abaran faawu biha ak moom nga xam ne kon yaari bihaa moo sësaloo waaye jenn ji moom boo waxee xat xasaytu abadan bihaa foofu lay sës nga ne nag tadduxul da nga tàbbi baa bahaa buntam ba bihaa ànd ak moom xadan ci ëllëg yéen bépp cër boo xam ne mooy nga ci yàlla nag te yàlla jéggalu la kon bu ëllëgee cër boobee bunt sawara ba mu jàkkaar looloon ci ngay duggee sawara yal nañ ci yàlla musal wa an yuhibba war na ci mukallaf muy sopp sax seen jëmm lil ilaahi ngir buur bi dil anaami kay boroom mbindeef yi wayu buxida te mu koy bañ loxoo ngir yàlla laalil xutaami du ngir bañatum àdduna nee na mu kàllaf dafa war ci moom ku bëgg rek ci doomi aadama yi mu bëgg ko ngir yàlla ku mu ciy bañ bañ ko ngir yàlla waaye du ko bëgg rek ngir yëfi àdduna yi nga xam ne yu gaaw a jeex la ba di ko nuróoleeg pañat pañat mooy matt mu sew a nga xam ne boo ko teg ji taal bi rek bu daal ne jàppit daal di jeex wa ahbib na nga sopp almumina aji gëm ja lil imaan ngir gëm ga wal tobb xidd te nga bañ alkaafire yéefar ba lil kufraan ngir weddi ga walaw ataa ak doon te dikkee woon na jëm ci yow bel jinaayat ci tooñ zaaka boobee julit wa zaa bi yéefar nag moom dikkee la bil maali ci alal dil kifaayat juti boroomuk doy nee kii gëm yàlla moom na ko sopp ngir gëm-gëm gëm yàlla rek moom ak lu mën am ki weddi itam na nga ko bañ rek ngir weddi gëm weddi yàlla doon ci sax ki gëm yàlla moom dafa laa tooñ tooñ gu rëy rëy gu tis ci yow it tax nga bañ ko moom na ko sopp rek ngir yàlla bul ko jàppee tooñaange nga ki nga xam ne moo weddi yàlla nag moom bu la joxoon alal ji du jeexit lu bari bari rek su tee na ko bañ ngir yàlla wa an yàkkoona war na ci mukallaf mu nekk aamiran di aji digle bi rushti ci jub wa naahiyan te aji tere xam dirdin walis ab safaan li nusxat ngir laa bokk na ci warteefu mu kàllaf digle lu baax aaye lu bon kem kàttanam di digle lu baax di digle lu baax di aaye lu bon loolu mu kàllaf war koo jéem kem kàttanam laakin na xoo moom nag la xoo na ko salaasatu shuruutin ñetti sart zakaraxa yoo xam ne tudd na leen fi sharhi ci saraaba cheikhuna sunu sëriñ al muhiitu ka ej wër xam-xam waaye nag nee na digleeg aay daa am ñetti sart yoo xam ne am na sëriñ bu baax bu ko leeral ci saraaba sart yi nag moom ñëw na ci ay béréb yu bare bare am nag nekkul saraab wóor bu muy wax bu dee léegi si al axbar am na sara waaye boo doon xool muxtasar fañ koy tuddee itam muy ci xalil dana fa am ci saraaba ñu tudd fa lu demee noonu jàppal daal ne moom diglee ko aay am na ñetti sart yoo xam ne yu mat a xam la xaleetu jublu naa fil jawaasi ca dagan ga wal wujjoo bi ak war ga nee na nag ñetti sart yi dañoo wóote ñaari njëkk yi moom day dellu ci fil jawaasi maanaam ñaari njëkk yi mooy tax nga saña diglee ko aay bu ci ñaari yi njëkk yi amul doo saña diglee ko aay du dagan ci yow bu fekkee nag bu ñetteel ba dolliku na ca mu daal nekk lu war ci yow doo ko saña bañ loolu jublu ci fil jawaasi wal wujjoo bi te ñett ba noppi nag ñaar yi moom li fi amul ci yow doo sañ a digleeg aay bu ca benn ba yokkoo muy ñett nag mu daal lay wartu doo ko sañ a bañ su jàppal nag xaddaxaa séenu bu lim xala bi ci toftale mooy jàppal ma waxal la ñetti sarti ni mu tegaloo ci namm ay yekkoona mooy mu nekk a man di aji xam bil munkar yi ci lu bon la munkar mooy lépp lu ñu ñaawlu ci yoon bi njëkk mooy na nga xàmmee lan la yàlla la yonante bi baaxal ak lan la yàlla yonante bi aayal donal ko li nga xam ne woo loolu rek bul jéem a digle ak aaya ndax kon xëy na ngay digle lu bon defe na lu baax la xëy na ngay aaya lu baax defe na lu bon la kon nag li fekk bi amul doo sañ a digle ak aaya benn nga ko wala sa muf diyan te dir muy aji àggale li chorrin jëm ci aw ay ak për yu gën a rëy ba tey ñaareel bi mooy gannaaw ba nga xam ne loolu aay na itam bu fekkee kooku dafa dugal bopp ba mbaa mu am jom joo xam ne boo ko aayee mu far def lu ko gën a rëy ni ki moom day tooñ nit di ko wax lu aay te boo ko ne eh bàyyi li maa ngi lay nangu nga bàyyi li def góor gi bàyyi li ngay def góor gi wóotu mu far ko dóor mbaa mu far ko rey ndax jomam kon na ngay far bàyyi noonu rek ndax ndegam moom li baax waru koo def waaye boo ko toppee rek mu jàll ci lu gën a bon kon say boo yem foofu ndax ndegam ñaari musiba la ku yóbbu dëkku ba gën a ñaara googu ñaar yi moom mooy tax nga sañ mooy tax nga sañ a aaye dara dara dara bu des nag benn bi nga xam ne mooy tax mu war la mooy wa an yàkkoon ak bu nekkee dul amri borom digle ga xaadiran di aji àttan xal isaalati ca dindi ga bi xëy na ku ci dul weddi gannaaw ba nga xam ne loola moom baaxut te it moom dindi ga du andi ay wu danga ëpp da nga koo dindi mu ne am nga baat bu toll ne. nangam muñ ko def rek boo ko waxee kenn du ko def mbaam nga ci mën nga teg doole joo xam ne mooy tax kenn du ko def loolu suñu caa dandirlu bu ko si am rek dara ji joo xam ne mën nga ne na dañ mu dañ rek moom jeex na daal nekk lu war ci yow doo ci sañ a dandirlu moo tax boobu bu ci rek daal nekk lu war wa sharatu sart nañu idna imaamin ndigalal imaan fii ci moom maxal xadaalati ànd ak maandu ga bilaa taw wiihin ci lu dul yëntal am nañu ne ñett sart yi doyut faaw day aajoo ilimaan ji may la ca ndigal ne la del digleeg aaya waaye ci sa bopp nga nitu kese doo sañ a yëkki digle ko aaya te nga boole ca maanu maanu mooy li ngay aaya doo wëlbatiku di ko def wax yi la waxees na it ne inna zeyni naka yi yaar lam yekku woon naa nekkuñu sart tey ni di ñaari sart fi am di ci digle ga daax na nga bàyyi ak tax mii na sikki sàkka mu ne nee nañu ilimaan may la ci ndigal ak nga maanu du ca dara ñett sart yooyu njëkk wax rek mooy la am solo te sooy boo jàpp loolu doonte ilimaan may la ci ndigal waaye loolee mat naa aaye mbaa mat naa digle rek na ko aaye bu dee lu ñu ko digle bu dee ñu digle su fekkee maanduwoo duntee rek moom mën naa yow maanduwoo waaye kooko normal na la mbaa xamul sa ñàkk maandu ba moom boo ko digalee mu def boo ko mu bàyyi kon nag sa ñàkk maandu ci sa bopp moom nga xam ci sa bopp moom la tee diglee ko aaye teewul na boo nekkan ku maandu nag la sa digle ko aaye di gën a am solo ndax da daal nekk royteef ca loola way jaa ajikk na ay ban ba tey chartu kawnil munkari sartub nekk lu bon loole fii zahirin ci lu fés mooy ci lu feeñ min duuni tajj sii si ci lu ak rajo rajo mooy gëstu secret duri boobu xameef na ko wala stiraaxi samhi du caa génn sàcc déglu wastin shaaxi raihatin ak foontu xet bananti ko xet mooy foontu xet ka fi andi din nifaax ni ki jëfi boroomuk naafiq waxul sar ci itam lu bon loolee kooku di ko fusal di ko làq waaye bu fekkee di koy nëbb moom ngay bàyyi ba mu feeñal ko rek waaye nag di gëstu secret wala boog ngay déglu ba nga xam secret ba ndax xam ndax bëgg rek bu dee lu aaye nga aaye ko mbaa nga fóontu xet ga ba xam lu mu xeeñ nit bu ñu diw day naan sàngara boo ko boo dendee moom di fóontu xetam ba xam na ko xeeñam de ah baa bu ñu nee diw day sàcc bu guddee mbaa nangam bu toogee fee di waxtaan ngay déglu la muy wax ba xam dana ci jëmam déet loolu moom araam na kenn sañ tëgg suñu mbiri jaambur moom kat bu ko fësalee rek ñu aaye ko ko waaye bu fekkee da koy làq moom dañu koy bàyyi rek noona xëy na du ñàkk mu feeñ ndax nag yi maanaam ñu yilif foofa am nañu sañ-sañu bi loolu wut ay agents di gëstu li demee noonu di ko topp loolu mel na ni kii yooyu moom daañu koy def wala ñooy gis daganut baax suñ gëstu xanit lës yi walis dara loo xam ne iktatama nëbbu na fii taw bi ci malaanam aw fii dukkaan yi wala ci butigam naxam waaw aw fii yedde yi wala ci yaari loxoom aw bi daari yi wala ci këram naxam doole seen bal li fi nekk kullu saa képp ci lii kaana nekk na xaraaman di aji araam mu ne xa joj te def na ko li waxoon léegi moom la dëgëral maanaam suñu laajee kii gëstoo ko jéem a xam la mu ëmb ci ay yéreem nekk ci poosam mbaa mu def ci butigam mbaa mu ngëpp ci ay loxoom mbaalam def ci këram loolu daal moom bul ko jéem a gëstu boo ko jéem a gëstu rek yaa ngi def lu araam ndax ab jullit da ngaa rafet ci moom njort ba nga gis nag lu ñaaw ci moom nga doo caa wax dara waax la mu xamal bi àndal ambala ci naka digle ga woon nax ya ak tere ga na na xumaa ci seen diggante talaa sumul ak taqoo te amalan na nga seetantal nga xam ne fa mën naxaa ku rek ku tere xam ay feeñ way sumulu ci mbir xat jaraa daw na fa indoxoon naka moom rek xat amara digle na bi xag si ci safaanam xamal nag ne digleeg aay dañoo taqoo taqoo gu toll ne boo defee lee rek faaw la ci des am te doo ko sañ a bañ dañoo goo xam ne digle moom lu baax lay doon lu baax la am na lu mu safaanoon lu bon saa yu digle lu baax li aaye nga lu bon la soo aaye lu bon la digle nga lu baax la it boo ko digalee taqoo wax dëgg faaw aaye nga ko fan soo ko aayee wax fan it ah digal nga ko taqoo wax dëgg faaw boo ko teree yeexi waxtu digal nga ko julli ci waxtu nga xam ne kon daal moom dañoo taxoo taxoo gu toll ne bu lee amee rek la ci des mu am mënuñoo tàggoo mukk mukk mukk wala xarumu dana araam al kibru rëy alayhi ci mukallaf war ak ngistal wa kasidun ak fen namimatun ak rambaaj fal tadriyan na nga xam wàññi na ci way wi rëy ak ngistal ak fen ak rambaaj yooyu yëpp nag nee na mu kàllaf da ko war a moytu bu baax a baax ndax lu araam la xaqiiqatul kibri dëgg-dëgg yu rëy bi kasri kaaf yi ci kasara kaaf ga kasara kaaf gi mooy nga maas ko maas ko ci suuf muy ki ma bi sukkoon baay ak ci sukkoon baaba bilaa xilaafin ci lu amul benn wuute ci lu benn wuute sukkoon mooy maas ko nekk baa bi topp ci kaaf gi da koy def ab raa gi nag moom soxul neen léeg-léeg muy ru léeg muy ra léeg muy ri ñi kon ko defee fii wala moom ñu jàng naxu ko xam dëgg-dëgg kibir boobu nag xul waxal ne rafu nafsin mooy yëkkati boppam maxa kat mil xaqi ànd ak nëbb dëgg maxa taxal burin ànd akum màgg-màgglu waxam til xalqi ak xeeb mbindeef yi fi dëgg rëy boobu nee na mooy nga jàpp ne am nga martaba daraja kay itam am na ko waaye yaa ko kaw daraja saa yoo jàppee ne am nga daraja kay am na ko rek waaye yaa ko féete kaw rek loolu ak rëy la li yàlla sàkk lépp lépp lépp lenn loo ci gis ba defee ne yaa ko kaw rek loolu yaa ngi amatale ci rëy moo tax bëgg rafet baax na ndax yàlla dafa rafet te bëgg lu rafet waaye nag yëg boppam ba xeet mbindeef yi bu déggee dëgg sax dëgg du ko nangu ndax rëy gum rëy ndax rëy googu day indi dégg dëgg te du ko nangu day indi muy xeet mbindeef yi ak yëkkati boppam xam ne kon jëmmi rëy gi dëgg dëgg moom mooy rek saxalal boppam martaba saxalal ko keneen te jàpp ni moo ko ëppale keneen loolu bu xasee am nag moom dina di indi mu dégg dëgg du ko nangu dana ci indi màgg-màgg lu ci kanam nit ñi ak xeeb leen waaye jëmmi rëy gi moom mooy loolu xaqiqatu riyaa dëgg-dëgg yi sal la dal ak yaa sooy ñaw ña iqaaxu xurbatin mooy tàbbal ak jaamu li xasdin naa si ngir jublu nit ñi dëgg dëgg ngi sal moom nee mooy loo xam ne xeetu jaamu yàlla la nga def ko te yàlla taxul nit ñi rekk tax mel ne bëgg ñu tagg la ja mbaa ragal ñu ŋaañ la ja mbaa bëgg ci alal mbaa ak naweel mbaa daraja yi demee noonu daal jaamu yàlla gum def te ngir yàlla kese taxul rek loolu mooy ngistal waxoo moom la daa imaamina fa sunu te moo di alxasaali igzaaru taaxaatin moo di baril ay topp yàlla maxal maxaali ànd ay kawe di ko yenaa la ngir mu am fi quluubil qawmi ca xoli nit man si la tan wàccukaay xajiibatan bi aji yéemu fi raw nu ci càkkuteef la alxasaali nee na ba tey kat jëmm ji barilee xeet topp yàlla yi ak lépp lu baax te jubluwu ci lu may am wàccukaay bu réeree ci xol nit ñi maanaam nit fonk ko naw ko rek la ci jublu kon xam nga ba tey yàlla taxut kon ab jaam daal moom day farlu ci top yàlla te yàlla yi kese kese tax man nga ne leen daal lépp lu def loo xam ne yàlla yi kese kese tax leneen doxu ca rek sell na bu ci leen rek mu daal nekk gisal xaqiqatul kasi bi dëgg-dëgg seen ixibaaru ko mooy sa xibaar maa xam ne la yekku nekkul saabitan di aji sax tu xawlil fu la maa ci wax way xam ña fen nag mën nee na yomb naa xamle wax lu amul rek saa yu waxee lu bokkut ak la am dëgg-dëgg rek loolu mooy fen wax lu bokkut ak la am dëgg-dëgg bu ko defee rek fen a ngoog waxoo moom nag xabiifun aji bon la bu wëjibun te aji waral la ida jalaa nen feeñ na laanata biir jalaali rëbbum borom màgg ga fii maa ca la nga xam ne nuqi la toxaleef na ko nee na moom lool te mata moyu ndax saa yu amee rek faaw yàlla rëbbu kookee nga xam ne moo fen ndax isi ngir laa yamiinu du fen ash-shakhsu jëmm ja illaa xarajat dara bu génn ci dubatuhu fenam wa min ci tukkee ci gémmiñam nga su ma saada topp bu yéeg fa tabluxu te muy jot alxarsu xaras nga xam ne ala makaanin mooy gën jaa kawee bi rek suma taqul topp dana wax ne ana man day kii dubatu la anahu yàlla na ko rëbbu allahu yàlla na saa yu jëmm ji fenee fen woowee mu fen day génnal boppam di yéeg di yéeg ba ci arasu yàlla gu tedd ga mu ne man day aw fen laa woo xam ne diw moom la fen tekkee diw moomu de yàlla na ko yàlla rëbb su boobaa fayal anu dana ko rëbb almaliku buur bi subhanahu fayal naa ko lépp lu yelul ci moom min fàmma ca foofee ma kulli malakin ànd mépp malaaka su boobaa yàlla day rëbb ko fen boole malaaka yi fa nekkoon yëpp maasa ci rëbb ko móolu ko wa takk tubate dina bind al amlaaku malaaka yi xaddal ayni li mu juróom-ñaar fukk xat yi atan ci ay ñaawteef alayhim war ko doona may ni dirul fen te kat wenn fen wooyu dong daañu ko ci bindal juróom-ñaar fukki ñaawteef te kullu xatii'atin bépp ñaawteef bi qadri jabali nekk na ci kam dajoo fii Uhudin ci Uhud xakaafu ñett li na ko cheikhuna sunu sëriñ alwali kay kilifa juróom-ñaar fukki ñaawteef yi wenn wu ci nekk day rëy rëy ba toll ne montagne Uhud dañuy wax fi toll montagne lay doon laakin na xoo waaye nag moom kenn xas xoo séddali na ko baadu zawil ahkaami leen ci waram àtte li xam sati aqsaam yi jëme ko juróomi xaaj bu ne waaye nag ñi xam ne ñoo xam àtte ka dañ ne fen juróomi xaaj lañu bokkut fa xaal te mu wax jaami xan mbir mu ne aji boole loxoo ñel ko fii xadadi sittati abiyaatin ci li mu juróom benn ci aw way jayit muy aji rafet maanaam ka wax ne fen juróomi xaaj la dafa wëlbati ko nag léegi wax juróom benn bayit yoo xam ne ca la leeral xaaj yooyu ne daa wax ne xasamoo séddale nañu alkasiba fen li xamsatil aqsaami jëm ci juróomi xaaj fa minhu bokk na ci fen man duubun fen wu ñu sopp wa minhu bokk na ci fen maa fen woo xam ne yajibu dana war kooka daal wax ne fen day boroom xam-xam yi dañ koo def juróomi xaaj nga xam ne kon xaaj yi àtte yoon yi muy lu war ak lu ñu sopp ak lu dagan ak lu ñu sib ak lu araam juróom yépp mën naa am ci wàlluk fen ba tey mu daal di njëkke ne am na ci fen wu ñu sopp nga xam def gaa gën bañ gaa def am na fen wu war nga xam ne moom sañoo ko bañ a def man doobu xoo lañu soppam lil xar bi ñeel na xare wa irhaabi aku ragalloo li kaafiri ñeel ab yéefër yox daamu ba mu na ko war moom def na ko nax bil kizza bi ca fen wa nee fen wa nga xam ne moom lañu